قال خديم المصطفى محمدي أغمد خاشدا لوجه سمري قال خديم المصطفى محمدي أغمد خاشدا لوجه سمري الحمد لله البديع الباقي في الأرضين السفن والتباقي وأفضل صلاة وسلامي على الذي تنوله أقلامي وقاد ريبي لنا كرما زمان أرب الجبان يدل بقدري ويجود بدلل أكرم بي رب الجبان من دبا أن التوجه إلي فاندبا أكرم بي رب الجبان من دفع أن التوجه إلي فاندفع نغم المكرم كريم من جعل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqima sirata allazina an'amta alayhim ghayri almaghdubi alayhim wala dalin subhaana man bil mulkihi qad tafarrada wa xaada li ma xaada li wa afrada barkeb Cheikh Abdoul Karim Mbacké sëriñ bi ñu ngi bu baax di ci barkeb sëriñ Touba yàlla na sa taxawaay bëgg ko fi teew ku si làmmiñam Cheikh Abdoul Karim Mbacke Fadilu yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Abdoul Fadilu yàlla na fi yàgg te wér Cheikh Abdoul Karim Fadilu yàlla na fi yàgg Mbàkke yàgg fi loolu te ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di nuyu bu baax it mbokki taalibe yi ñu fekk yëpp rawatina magu taalibe yi dafa dafa guddi te bu ñu toppee lim bi amaana ñu am ñu ñu bàyyi waaye magu taalibe yi ñu fekk yëpp ak yi ñu àndal ñëw fi yëpp ñu ngi leen nuyu bu baax di leen siyaar ci sama kàddu waaye si turu jëwriñu kër gi yëpp. bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen mag ak ndaw waaye nag rawatina jëwrin Lamp Fall bi nga xamante ne bis bi ci moom la soqi koo ndax mbir moo gis dafa am fu muy soqi koo mu mel ni bis bi ci jëwrin Lamp Fall la soqi koo waaye la ma doon wax barki démb Ndakaaru rek moom laay feddali fii bis bi dafa dem ba toll foo xam ne nekkatul bisu jëwrin Lamp Fall dong nekkatul bisu waa BMD dong waaye nekkatul bisu Baye Fall dong bisu képp koo xamante ne bokk nga ci kër sëñ Abdou Karim Mbacke ak foo si mën a bokkee bis bi sa bis la kon kàddu gi ma yëkkati kàddu yi jëw nii si kër gi yëpp la Mbacke nag kàddu gi du gudd rëy ndax li ko sabab mooy waxti waa ngi dem dañuy tàmbalee ci yow rek yem ci yow di ñaan nga yàgg fi te wér ndax yow sunu toogaay ak yow sunu jotaay ak yow saa su ne dolleeku lañ ciy jëlee ci saayir ak ci baatin léegi rek ci jotaay bi firnde na ko ndax ku ne xam ne ni ni ñu aadoo daan def ñun kuréelu Baay Faal bu ñu masaan indi ya dañ koy dëxëñ waaye sëñ Abdou Karim ci bëggam lu baax ak xamam lu baax ak bëggam ñëpp jariñu moo tax tey ñu bëgg biral li ñu indi ndax dañuy faral di dégg moom sëriñ bi muy wax ni lu baax ñu ko defee fu fuñ ko defee laaj ñu biral ko bu baax ba ñëpp dégg ko ndax li koy sabab mooy dana soññ ña sa nekkoon mu gën leen a soññ ñu gën see góorgóorlu waaye dana soññ ci ki nga xamante ne nekku ci woon mu def ci xelam góorgóorlu ba mën a aw si tànk yooyu kon Mbàkke jàngalaat nañu ñu ngi lay ñaanal baax nag sunu borom yàggal sa taxawaay ñu ndey suñu digganteeg yow bu yeboo ma ne sax jaratul wax ju bari waaye dafa di wax ji faaw mu am mënta ñàkk ndax ku la defal loo xam ne ñëpp dañ koo tële ci yow ñëpp fekkoon la fa nga nekk nga meloon neneen ñëpp bàyyi la fa nga ñëw jël ñu ku ci mel ne man ak keneen ku dul man ak koo xamante ne dégg na kàddu gi ndax li may wax man maa yor kàddu gi di ko wax waaye daanaka ñi fi toog ñëpp di góor ak jigéen kenn ku nekk boo jëloon kàddu gi taxaw fii ma taxaw di wax ci yow lu sëñ Abdou Karim Mbacke jële ci yow di nga wax lu sëñ Abdou Karim Mbacke def si yow ba dootoo soxla sa bosum morom kon ñu ngi lay sant Mbacke nga yàgg fi loolu te wér yow de yaa ñu dimbali yaa ñu dimbali de ndax li tax ma ne yaa ñu dimbali moo di ñun day démb neneen neneen lañ meloon feneen lañ awoon. waaye fa nañu meloon démb ak fa ñu bëggoon a aw démb yaa ñu fa fekkee kenn fekkuñu fa yaa ñu fa fekke indi ñu sa wet fóot ñu ba ñu set raxas ñu ba ñu set ba ñi nga xamante noonu ñoo ñu doon de démb di ñu daw démb tey fu ñu jaan ñu ñu yokkaliku ngir sa barke kon Mbàkke ñu ngi lay ñaan nga yàgg fi loolu te tey yombul nag sëriñ am sëriñ bu mat sëriñ yombul yombul de am sëriñ bu mat sëriñ yombul sëriñ bu mat sëriñ dafa lay jël nga mel neneen noo xamante ni doomu aadama yëpp dañuy jàpp ne yow dootoo baax dañuy jàpp ne yow kenn mënatul ci yow dara c'est fini fu fu fuuti nga waaye sëriñ bu mat sëriñ ni muy def ab taalibeem day mel ne ni saabu di def tisi bu tisi bu tilim yow sëriñ bu koy mbàkke noonu nga ñu def dañoo fekkoon ñu tax tilim mel neneen nga fóot ñu ba set tey ba ñëpp soxla ñu loolu nag du ñu sa taxaw fenn wax ko du ñu sa taxaw fenn mbàkke yow sagoo la yow sunu sag nga du ñu sa taxaw fenn sagoo la barki dem dama koy wax ak benn mbokk taaliba dama ne ko fi ñu toll day sëñ Abdou Karim Mbàkke defar na defar defar ba fa mu toll moom talatul sax di defare sëñ bi mu si leneen waaye ñi muy defar ñi mu defar ba ñu jag ñoo wëlbatiku ñoom di defare waaw sëñ bi yow fi muy dépensé nga sax di defar yow ñi nga defar ñoo ko di defare kon ñu ngi ñaan sunu borom yàggal la kàddu gi nag jarul muy gudd dafa di ñun lu ñu jëf si yow xeeb ko dañ lay jéem a fay bor bi waaye mbàkk yow kenn mënu laa fay sëñ Touba li mu bind yëpp ci li ñu xam ñu ne sept tonnes cinq la ci li mu bind ci lu ñu xam waaye teewul dafa ne yamini alayha daynu xattin yuri sunan moom li mu bind bind tagg ko rasulullah yi tagg ko suñu borom yëpp sëñ Touba nee na moom saa su xëyee rek jàpp na ne desal na yàlla ak yonente bi tagg mbàkke ñun luñ la jëfal ak lu mu bëri bëri bari bëri ci saayir jàpp nañ ne ñun saa sune ne rek deseel nañ la bor bu la war a fay kenn mun laa fay yàgg fi loolu tuwér li ñu indi tey nag lu ñu xeeb la moo ko fa faale xeeb nañ ko lool jëruñ làmp nee na ak jëruñ ma àndal nee nañ mbàkke lii ñu indi tey xeeb nañ ko lool dañoo bëgg nga ñaanal leen ci barkeb Sëriñ Touba ca barkeb maam bu déwénee bu ñu fiy dellusiwaat ñu indi fi fukkam ren nag ñetti million lañu indi ak genn wàll ak li ñu yónnee woon bërki démb tey jii ñu indiwaan ñetti million ak genn wàll indi ñaari ton ceeb ak genn wàll ak ñaari bëri bërigo diwlin ak genn wàll ak ñaari saaku suukar ak ay ay saaku soble lii nag moom Mbàkke mu doon loo xam ne lu ñu xeeb la bëgg nag bu dee bu déwénee ñu indi fukkan ndax maam Cheikh Ibrahima Fall kan mi nga xam ne moom moom la ñuy te bu ñu ñemee dara ci Cheikh Ibrahima wax ñun bu ñu ci maam Cheikh Ibrahima Fall yaa ñu defi Baye Fall yaa ñu wan kenn mooy Cheikh Ibra kon ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm kàddu gu ne dañ koy wàccee di ko jox jëwriñ Oumar Diagne lépp loo xam ne dañ ne seen mbàkke ñu ngi koy jégalu dafa di ñun bu ñu jàkkaarloog yow dootuñu am sago bu ñu jàkkaarloog yow li ñu naaroon tënk ko ne noonu la ñuy wax bu ñu jàkkaarloog yow mbëggeel gi ak cofeel gi ak gën gi daf ñuy jaxasoo ba li ñu bëggoon wax sax ko wax ñu lay ñaanal nga yàgg fi loolu te wér jërëjëf Mbàkke yàgg fi loolu te wér jëwriñ Oumar Diagne ñoo ngi lay jébbalaat suñu ak suñu fépp ak suñu ñëpp ci saayir ak ci baatin amuñu dara xamuñu dara mënuñu dara yaa xam yaa mën yaa am kon Mbàkke kàddu yi ñu jël ñoom la ciy jéglu bu wér di jéglu ci toogaay bi ngir xam nañ bu baax a baax fii nga tollu ak li ngay daj di ko coono woo ak li yaram wi di yëg ci coono kon Mbàkke ñoo ngi lay jéglu baax kàddu yi nag di kàddu yi jëw ni yëpp ni ko jëwriñ ab ndaw waaye kàddu cant la rek ak ngërëm ci kuréel yi nga xamante ne bii ñoo ànd ak jëmm ji Mbàkke balay sax di jëwriñ Lamp Fall ñun ñëpp ñu maase ànd ak moom ren ni nga xam ne noonu lañ ko defee woon daaw ak at weesu ci li nga xam ne moom mooy ziar yi di ndimbalu jaam ji mu mel ni Mbàkke balay sax cant bi dañ koy jëmee ci jëmmi Lamp Fall mii ngir li ko waral mooy moom de Mbàkke dañ lay séeréel ne saa su nekk mi ngi yaatal li nga xamante ne bi moom mooy dunduk Baay Faal gi ci makaarimul axlaax moom mii fa la teg tànkam tegiwu ko benn yoon mi ngi koy doxal ci kem fa kàttanam mën liy firnde ji mooy siyaar bi bi mu ko tàmbale xalaat yi ak li nga xamante ne bi moom mooy waajtaay gi bi nga xamante ni suñu borom dogal na muy waaj lii waajtaay wi ak li nga xamante ni mooy waxtaan wi ak xalaat yi yëpp dafa dajale jëwriñ yëpp toog waxtaan ceeg ñoom muy jëwriñ Babacar di jëwriñ Abdou Ndaw mii jëwriñ Murid Mbay mii toog aw jëwriñaat yi nga xamante ni ñoo nekk ci biir Baye Fall yi yëpp la dajale waxtaan ak ñoom li nga xamante ne bi noonu la bëggee ziar bi ci wàllu yaatal waaye yemu ca lépp lu mu ci yëkkati di ko def kenn ku ci nekk jox na la sa wàccuwaay ci dem seeti la toogaat ak yow ay yoonu yoon ba mu mucc bi bi ñuy seeti kilifa yi nga xamante ne bii mënta ñàkk mu dem ci ñoom yëgal leen ko dafa jël otoom yi def ci gasoil ànd kook ñun kenn ku ci nekk kilifa gu ñu nekk ñi teew sa kër waxtaan ak yow donc leneen mbàkke bu fekkente ne bii jëriñ ju mel ni Lamp Fall mi nga xamante ne yaa ko tàggat ba mu mel nii mu mel li leen ci moom nga def ko ci moom def ko ci yeneen naatangoom jëwriñ yi fi teew yëpp moom muy yaatale loolu loolu li nga wax sànq rek lañ ciy jële muy ab njàngale la ci képp koo xamante ne bii tey yaa ngi doon jëwriñ wala nga doon jëwrinaat nekk ci biir makaarimul axlaax bi ci liggéey ndax yow Mbàkke boo sañoon lii day daj képp àdduna rawatina senegal gi ñu ne kon lii làmp faal jëf jëwriñ làmp lii mu def nii war na képp kuy jëwriñ koo xamante ni ñu lay tuddoo jëwri rek mbooloo nekk sa ginnaaw ci yaatal ci ruq yeeg ruq xar yi nan ñu ko waxee woon ci jamono wax ne na dugg ci biir kër yi dugg ci biir quartier yi dugg ci biir koñ yi ak gox yeeg goxaat yi wax nit ñi sama woote bi ndax damay bañ ëllëg kenn yëguma ko woon moom mii fa la teg tànk Mbàkke Balla Si dañu ci benn yoon ndakaaru gee ñu nekk amul fenn foo xamante ne bii daayira ma nga fa sosu muy daayira boo xamante ne bii Baay Faal la ay daayira daayira Baay Faal la wala muy daar bay Faal te bootu ab daayira bu mag jëw ni ñu jiital ñu di di yaatal liggéey bi di di ci dox Mbàkke bala is waaye nag ñoom ñëpp nag àndandoo bokk ci ginnaaw jëmm jii di Touba Sene ci ndigal li nga xamante ni jox ko ko ci jokkoo yooyu nga xamante ne bii maanaam weer wu dee wu ne ñu ngi koy def wala euh, fukki fan ak juróom yu ne ñu ngi koy def kon Mbàkke balay sax li jëwriñ wax ab Abdou Ndaw xam ne maanaam yitte woon lu ñaan ak doole nga kàttanal leen ndax ñoom ñii kat li nga xamante ne nii moom moo leen ñor du dara lu sa liggéey bii waaye li leen ñor du dara lu fexe ba yaatal sa liggéey bi ci ni ko bëggee Mbàkke balay sa kon Mbàkke ñoo ngi gàttal bërki diiru fii fekk nañ fi ministre Libéria bu ministre de l'intérieur bu bu Libéria mu ñëw fii seet si la Mbàkke keroog nee naa la Mbàkke kii de li mu yëg ba ñëw bu ko ñëpp yëgoon ba ñëw coono jeex ci àdduna mbëru mbëru yaa cheikhuna abdul karim um nga lambi soo daan ak bii daan mbàkke yaay ndaanaan mu jëntalu buntu way texey mbàkke yaay kéemaan defar nga mag defar ndaw ci ñoom lu dul defar nga sax ña ñu ne woon ñii dootuñu ñu a baax tey ku yàlla dafa réew de dootoo dëng cheikh abdul karim mbàkke yow yaa di tànneef naxoo ñu mukk mbàkke tey jayoo ñu ngir dangaa jaar ci yoonu baax ba nopp duñu ci xirtal makaarimul axlaaxi mbàkke doy nag mbaax yàgg nañ koo dégg ak a wax te xamuñu lu mu doon yaa ki ko doxee te jëfi ko it ba ñu xam ni mu doon bu doon mbubb la baa dàll bu ñuy sol ci jamono jii ñu ne kon mu ne këru diine gu la neex duggal ndax duñu fa wax mukk mbaa ñu jëfalu génn makaarimul axlaaq yi wiiri jaari ndaari kaa leen jubali ndaari ànd ak Cheikh Abdoul Karim Mbàkke mi liggéeyal yàlla fees nga Mbàkke suñuy xol te fees it ñun suñuy bët ba moytu noo bëgg mbaa ñu gis leen dul yow Cheikh Abdoul Karim Mbàkke woo jëme ci sa bopp ña duwoo maqaama ko wilaaya yàlla ak sunna yonent lii képp nga ñuy digal am leen yarte ami teggin fonk seen i waajur ak ña maase ak ñoom seen i mag weg leen te seen i rakkit yërëm leen ci lii képp nga sax yow yaa dib ëkk mbakk ngelaw mun laa yëngal bëgg lu ñu neex du la tax wax mukk loo gëmul Cheikh Abdou Karim Mbacké yaa mat wasila yar nga ndaw ñi teg leen siraatal mustaqim yow de ku la déggal du ree taaw xeetam du te yées yaatu nga woyof te de ànd ak laa biir dëkk si ñuy jëriñ tamañ la benn njëriñ Cheikh Abdou Karim Mbacké yaay borom njëriñ la gën fa yàlla jox nañ ko yeneen mu jox ko bàmba mu ni la am lu waaye am am ba di ko jaay bi ak see fi yow ngir bëgg am ci li ngay jaay Cheikh Abdoul Karim Mbacké Falilou yow dul lu baax ñoru la lu dul lu baax safu la lu dul baax teelu la Cheikh Abdoul Karim Mbacké yaay borom baax lambatu woo dangaa daj boole xam ba far baax yaa ñu nambatal ci lislaam iman ak ci ixsaan ragal yàlla gu ànd ak kóolu bay Karim Mbacké amoo ci maas jaamu yàlla ci biir jaamu yàlla yi góor dab ci yaa doy waar rahmatal lil naas sag defar jaaxal na Cheikh tarbiya mosuloo génn réew mi yaa yi warum réew saa boo xëyee yaa ngi ci lu ñuy jëriñ Mbacké suba ngoon tay woo sonn loo Cheikh Karim Mbacké daqewuloo woon ñoo ngi lay tooñ suba ngoon nga dañu jéggale woon am mu ne dañu lott ndey ki bàyyi moo waral ñu def la ngay sunu waay foo mësa romb ngërëmal yàlla sàkk nga ba am fa lool ay yaa fa may lool góor am ci bii daan am kilifa yaa fa jàngal fonk koy amoo ci naas tarbiya na Mbàkke ba am ngërëmal mbooleem gaañe woon am na ngërëmal Cheikh Modou Moustapha am na ngërëmal Cheikh Mouhamadul Fadilu Cheikh Abdoulaye Mbàkke gërëm na la Cheikh Abdoul Xaadir gërëm na la Serigne gërëm na la ak Cheikh Mouhamadul ma dellu jëlee sama xalima jëm si fi yow di dabwaan mbooleem ji koy woon ci Serigne Moustapha falliloo gaañe mel ni Serigne Modou bu sa jëng baatim la boole woon ak Serigne sa mëstagantal lu rakkay jooy moom gërëm na la Alaaji Baara xëy na gërëm dug nettali damaa fekkee keroog ci aliya ba Serigne Baara ñëw digg naaj wu tàng nga defi tànku neen boole ceeb daw ngir tertu sëriñ ba yaa doy waar rëppeelu ci kanamu sëriñ baara di safug ndongo laxasaay bu xeebu bu gis borom mam mam baara keroog ku fa teewoon ku ne yéemu nga ëttu mbàkke mbosoo béyki paaleen sa jëf jaa fay riir cheikh aboo falilu na la ngir mbégteem gu réy ga fàddu na juróom-ñeenti fan ci Chaabaan juróom nañuy ngëneeli Chaabaan wata buy jar ay million nga fab boolee ki million jébbal ko mu far fab say ba mu jébbal Cheikh Fadilu Cheikh Karim yow foo mas a jaar yaa fa jëf lu tax ñu naan la Mbàkke jaajëf Touba booba Fata jëfal nga fa Cheikh Abdoul Fata lu waral ngërëm lay riir ba tax njabooti Fadilu ku ñaan ñàkk boo jëndee am Cheikh Karim Mbàkke am nga ndam noppal nga say kilifa kenn déggu la te yaa yor li wax déggeesu la jël nga sa lépp jébbal Sëriñ Abo nuy déglu Cheikh Sidi Muxtaar Baye Fall yoonu murid Cheikh Abdoul Karim Mbacké ree tëf na kër Cheikh Rafal nangu ndigal ak sell gaa jëf li ya waral ngay soppeek gaa yi Cheikh Rafal yee salaat nga taarixu yoon wi te yaa jàngalewaat ak taalube wallaahi jag nga jagleel nga jagal koo fi gis mu ngay bëngee ko xënte woo bëggal sëriñam sët yi njëkk ci Touba njëkk a doon Serigne Touba Alaaji Baara yaa ñu wan ci moom ba ñu xam ni Ahmadou Bamba jógu fi ngir gaynde du jur muus garabu kaani doom jaako gën a weex surtout gaynde gaynde lay doon Cheikh Mountakha mooy Serigne Touba bu la bu la neexee di bàkku ndam nga ndam jarul di làqu xajatoo fenn jantum njolloor nga guni dàng te ne sa morom may na ma xool soxna jaaru bu sa maam Mariama ñu may Ahmadul Xadim moom la ñu duppee soxna a Bousso mi ñu may cheikh mouhamadul fadilu mu dellu ko duppee soxna a fay mi ñu may cheikh abdul karim yow njëkkante woo mbaax dangaa doon lu ngëneel adduna këfu la diina jamu la tasab naw la yebu la doo ko ñuy sañ la ko mënal xaaroo kenn ci li la war cheikh abdul karim mbàkke yaa mat sëkk la nga doon la gën fa mu gën a gënee fa la la tànnee nga raw amul ku ñuul wala ku weex ku bëgg lu baax ku ne ngay kilifaam waa ji yu rafet yi docteur xol yi faral suñuy ràgg xol mbàkk te defar ñun leen yare yaa matal yoonu l'islam bi yow rek a dajal tafsiral nga nu qur'anul karim ci ay meloo ki jikko ba ñu dooni fóorate mosuñoo dal baa yaa gënal yàlla fi jàmm ñi nda say waxtu mësta nawet lu ngërëm doo xajalee ko par parloo mbaa jënd ko wut farandoo ñëpp nga boole yemale ku nekk jox ko mbàkk li mu moom doo jàpp nit ngir xeet xam ne woo pël ak géer jikko yeneen nga lamboo Cheikh Abdoul Karim l'université universelle qui nous fait apprendre la droiture la dernière ligne droite qui reste à sauver le monde Cheikh Abdoul Karim enveloppe-nous dans ta miséricorde ta générosité et ta gentillesse introuvable Oh Cheikh Abdoul Karim Mbacke le guérisseur, guéris-nous de nos mauvais comportements, éloigne-nous de tout malheur et faites-nous manifester dans tes merveilles. Oh l'éducateur spirituel, oh l'idole de ta génération et celle du futur, oh Cheikh Abdoul Karim Mbacke le très noble exemplaire Mbacke yàlla na nga fi yàgg te wér Mbacke. tey dañoo ñëw di la ziar si tombeek ngay liggéeylu ci biir kër yi. ñuy def ku nuyoo rek ñu ne la demal nga dugg ci biir nga barkeelu ci liggéey bi ma di ci profité waale rek di wax ne sëriñ bi dafa wax ne bu ëllëgee dafa bëgg Baay Faal laxasaay yépp daal di fiy toog ñaari fan rek jàppale ko ci lii muy liggéey ci kër gi muy ndigal nag ci kullu Baay Faal laxasaay ku dul Baay Faal laxasaay it te mën a toog it nga toog rek jàpp ci liggéey bi ëllëg ñaari fan rek Mbàkke nag ma am lu ma la bëgg a ñaan tey tuuti rek dama bëgg rek nga may ñu ngir jëmmi seen fal ngir sa barke rek ñu laaj fi àddiyee rek dajale fi benn million rek nga dimbali ñu rek dugaloon ñu ko ci biir liggéey bi Mbàkke Bal ma bëgg lu waay yor rek na nga ko génne dafa am lu ñu bëgg te loolu moo ñu koy may te maa koy tàmbali yow koo aar mu mucc njaqare boobu ak tiit gi yëpp bu la neexee fii nga toog tey lépp dañ mos naa laa wax ne la ñun dañ laa wóolu nga ne ma wóolu lu wóor moo jafe man boobu la sama xel dal fi mu nii nit ñi ñoo toog nii rek kenn ku ci nekk bëgg wax ak kenn ku ci nekk am doléance te ñëpp mënuñoo toog fii wax ma bëgg leen a waxal bëgg su ma leen waxalee nag ñoom it ñu gëm li ma leen waxal yow it Mbàkke nga tontu ma tey moom dama bëgg jël sa xise bi rek dama koy àbb sa xise bi laa bëgg a àbb boobu ngay wax naan sëñ Fall day nekk nii ngeen nekk nii ma nekk arbitre bi Mbàkke damaa bëgg doon arbitre rek. bàyyi la ak yi ba noppi daw taxawaat ci ñoom jàkkaarloog yow nii nii aajo yi bëri na xam nañ ko kenn ku ne yaa ngi yor bouteille ñëpp a jaaxle waaye léegi da ngeen di nangu ñu def leen rek ma wax ak sëñ bi sëñ bi wax ak yéen rek mu jeex su dee noonu gaaw na rek ñu def ko baax na Mbacke gaañaa ngi ñi nga xam ni ñoo ma fekk Sarsara te fekk ñu jublu maa siyaare kon jublu gi am na solo tàqalikoo nañ àdduna ak àllaaxira ay bàkkaar waaye wax jooju sëñ Abdoulaye moo tax mu tënk ko ci làmmiñu sëñ Modou Mamoun ña laa déggee mu ne sëriñ bi muy sëñ Abdoulaye da ko mas a woone ko sëñ Modou Mamoun ni dama bëgg waxtaan ci sëriñ Touba. sëñ Modou Mamoun Niang nee na ma tàmbali tàmbalee foofu nee na ba ma waxee ba béyër bi daanu sëñ Abdoulaye dog ma ne ma Modou Mamoun ma ne ko Mbàkke mu ne ma garaat bi da ko fekk Sarsara mu waxee ko fa ne ku ko siyaare Sarsara tàqali koog àdduna ak àllaaxira ay bakkaar waaye fu ko fu ko waay siyaaree la garaat bi da ko fekk Sarsara rek ci gànnaar mu waxee ko fa waaye fépp la loolu nag mën dama koo bëgg man moo tax ma lay siyaare maa ngi lay siyaare bu baax tey ñaan nga yàgg fi lool te gën a wér yàgg na ànd ku wér ndax njariñ li nga xam ne yàlla do def na nga doon ko ci àdduna su ma ko doon misaal dama koy misaal ni sëriñ Tubaa waxee nii wallaahu yansuru nii yansuru nii jooju du weer bu paase de fi'lu mudaari la lu dëgmal si la yàlla dana ma dimbali ji la wax lam ca teg mooy wal xalqu mbindeef yi tatba'un yi danañ ma topp fil barri ci biir géer yi wal baxri ak biir géej saa nafin may borom njariñ bilaa darari ju àndu jenn lor sëriñ Tuubaa nee njariñ laa lu ànd ak jenn lor te sëñ Abdou Karim njariñ nga ju ànd ak jenn lool tujibu sayyidina muhammadin wa sallimi wa ali wa sahbi wa qalbi almi wa habli al ilama wal baraha wa asil lisan wal yaraha wa al ilama wal baraha wa asil lisan wal yaraha واجعل كتابتي إلى النبي أعب من خط خيري وإليك يا معب وبكلام في صدور القوم المؤمنين مخنيا اللوم وبتالي في القلوب من يلتمسون العلم في كل زمن وجعل وأديت فعلا سيدنا محمد وسلم والآل والسعب وارفع كلمي وارفع أروفي بذكر وقبول وعيش السيطان مني والخبيل وسليا وسلما لسرمدا على النبي والرسول أمدا وآله وصحبه وأبي ما في يرقب الكرام قبلي سبحان ربك رب الإسلام يذبون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أدي برمتوا